fii nag bu ñu fi ñëwee dañu fi ñëw ngir xam jëmmu dëkk bi di dëkk bu tedd bi di dëkku sëriñ Touba ay millions ngi nit dëkk fi dafa laajoon ñu jox ko gëddaam ci wàllu wér yaram ak ci wàllu infrastructure euh, rawatina ci wàllu pajukaay muy l'hôpital mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah yi ñu ngi senegaal lu wér la waaye ñu ngi ci dëkk bu sell bi di Touba di dëkk sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul barab bi ngeen di gis ci sama gannaaw mbokk yi mooy hôpital bu mucc ayib bi nga xam ne tabax nañ ko ci dëkk bu sell bi di Touba di hôpital boo xam ne kat jéggaani am paj ba ca bitim réew jàpp naa ne jeex na li ñuy xalaat kay xanaa ñeneen ñooy ñëw di fi jéggaani si am pañ centre hospitalier Cheikh Ahmadul Khadim turo la Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jox barab bii mbokk yi dañoo bëgg ànd ak yéen dugg ci biir ndax kat weddi gis bokk ca ngeen xoolal seen bopp déggal seen bopp xam ne li ne fi newul fenn ni Touba utee ak dëkk yi centre hospitalier Cheikh Ahmadoul Khadim utee ak mboolem centre hospitalier mbokk yi bienvenue à l'hôpital de Touba ñu duppee ko Cheikh Ahmadoul Khadim مكان كله وأنزل الغيث Fall nekk directeur bu infrastructure des équipements de la maintenance ministère de la santé c'est-à-dire direction technique boo xam ne moom mooy toppatoo loo xam tabax hôpital yi ñu tabax Sénégal yëpp ak équipement yi ñun ñoo ko jiite yàlla def ñu hôpital bi ñu nekk tey ñu tegoon ko suñu loxo tey après fanweeri weer ak ñeent pare nañ liggéey bi hôpital boo xam ne euh, jar na ñu ko tabaxee lu toll na 36 euh, milliards de francs CFA norme internationale yi ñuy tabax hôpital yëpp lañu fi dajale def ko tey hôpital bi am na lu toll fukki service ak juróom-ñett fukki service ak juróom-ñett yoo xam ne am nañ lu toll ni euh, fukki spécialité tey boo ñëwee si hôpital bi tabax na fi d'abord li ñuy wax service d'aide au diagnostic mooy service yi permettre docteurs yi d'abord ñu xool la lan moo lay métti ci service yooyu mën nañ tudd laboratoire laboratoire bu mucc ayib boo fa demee tey équipement yi nga soxla pour xool lu nekk ci deret yëpp am na fi mooy ay automate de biochimie mooy automate hormonologie mooy hémato ma lim yooyu rek am na fi yemuñ foofu ñu yokk si benn service banque de sang pour ñuy maye deret parce que dafa am solo euh, moom lañ booleek laboratoire bi service de diagnostic boo si demee li ñu wax rajo imagerie ñu beral loxo waa Touba ci service imagerie bi am na ñaari rajo rajo boo xam ne mooy def examen yu yem mbaay beneen boo xam ne mooy gën a xóotal ñu def fi scanner def fi li ñuy wax IRM IRM il faut ñu leeral ko Dakar rek la amoon Sénégal ba Sénégal jeex lañu amoon IRM def nañ IRM Touba mammographie def nañ ko fi échographie def nañ ko si service boobu mu nekk service boo xam ne boo fa duggee mën nga def lépp lu mel ni xeetu rajo mën nga ko fa def affaire jigéen maternité lu am solo lu tabax fi maternité boo xam ne bu yemb la ak équipement bu yomb également pour gaawal faj bi ñu ne ne dañ fay def benn bloc opératoire ci benn nga xam ne maternité bi moo ko moom loolu aussi lu am solo la ñu taqale si aw itam nag pour xale yu door a yu am door a judd yu tuuti yi nga xam ne motaguñ sax li ñuy wax néonatologie néonat boobu boo fa demee tey gis nga équipement yoo xam ne équipement de pointe la équipement yu wóor la mais également li ñu ko tabaxee pour nga mun a surveillance ñooñu nga xam ne mën nañ kii maintenant ñu dellu si spécialité nga xam ne dañoo jël service yoo xam ne Dakar rek la amoon ñëw indi ko fii service yooyu mën nañ tudd lu mel ni radiothérapie radiothérapie pour cancer la ñëpp xamoon nañ dakaar ngay dem dalal jàmm wala Dantec pour faju cancer Touba moo njëkk am centre de pour les régions loolu am solo la mais si projet bi également ñu yokk si beneen centre de boo xam ne am na fukki machine ak ñeent loolu aussi lu am solo la pour yokk en tout cas prise en charge maladie ñu dem si li ñuy wax centre des grands brûlés mooy xam ne ñu am lakk-lakk ñëpp xam na ne lu métti li amul Sénégal fu leen di faje ñu tabax ko fi fii la njëkk am Touba mooy centre des grands brûlés également ñu équipé ko ba mu mot lu baax feebaru urologie urologie pour mag ñi la mag ñu góor ñi mag ñu jigéen ñi xam xam nañ feebar bu métti la fii aussi def nañ fi appareil boo xam ne benn la amoon Dakar ñaareel bi fii la réanimation def nañ ko fi voilà dafa bëggoon lim rek ne hôpital bii du hôpital comme hôpital yeneen yi dañoo jël leneen loo xam ne amoon seen hôpital ñu yokk ko fi boo demoon si hôpital Sénégal benn scanner nga fi fekk hôpital bi ñetti scanner lañ fi def loolu dafa am solo scanner bu ne nag dafa am lu muy def par exemple service cardiologie bi dañ fa def scanner boo xam ne cardiologie la ndax boobu dafa am solo ñu def si cardiologie benn xeet rajo la li ñuy wax engiographie ñaar la amoon Dakar ñu def ko fi te angiographie ma xamal ne la évacuation sanitaire yu bëri ñu doon def extérieur ci war a xol loolu moo ko waral def nañ ko fi Touba tey kenn dootul évacuer lu bëri ay nit mën nañ leen faje Touba bloc opératoire bi aussi dañ ko organiser ñett ñett juróom-benn salle opération def nañ ko si hôpital Touba bi donc euh, wax dëgg yàlla bàyyiwuñu dara. service maintenance bu mag a mag a mag xam moom mooy toppatoo affaire bi bien bianderie def nañ ko pour lu tilim ñu mën ko fa def. marché bi moderne lañ fa def bàyyiwuñu dara xeet cuisine bi également def nañ fi cuisine moderne comme hôtel macha allah Touba lañ nekk également tabax également benn jumaa pour. Euh, personnel bi en tout cas duñu génne di dem feneen foofu su ñu def benn service bi nga xam dañ ko déjee uniquement urgence am na équipement yi yëpp yóbbu baax na bokkul sax porte bi bokkul ak fi ñuy jaar beral loxo rek waa Touba won leen ni service d'urgence dafa am lu solo malade bu ñëwee dañ ko war a jël rapidement def nañ benn rajo boo xam ne rajo bi mooy dem fekki malade bi si lal bi pour gaaw a def am nañ service rajo mais dañoo wax ne nag pour nga gaaw nañ fa def benn rajo boo xam ne moom mooy fekki malaat bi ñu def a benn salle de déchocage salle boo xam ne mooy ñu ñëw urgence sonn sonn dañ leen war a taxaw taxaw bu gaaw Covid bi ñu jógee nii ñëpp xamoon nañu oxygène ni mu amee solo ñun nag dañoo anticiper woon avant sax Covid bi di ñëw hôpital bi lal boo dem def nañ fa xeetu gaz boo xam ne rawatina oxygène oxygène boobu aussi hôpital bi du ko jënd. dañoo indi benn machine boo xam ne si jaww ji lay togg ngelaw li def ko oxygène dugal ko si hôpital bi donc hôpital bi du jënd oxygène indi nañu équipement boo xam ne mooy togg oxygène bi yóbbu ko si lal euh, trois lits yi am yëpp lal bu ne am na oxygène. ñi dëkk Touba mën a toog Touba faju même ñi dëkk si région yi wër Touba mën a ñëw fii faju ñu pays yi dëkk wër Touba ñëw faju loolu moo nekkoon yéene bi ñu bëggoon def Touba kenn bañ a jógati Touba dem Dakar pour en tout cas faju président la république euh, dafa jagle Sénégal ñeenti ñeenti bërëbu fajukaay ñeenti hôpitaux bu Kaffrine bu Sédhiou bu Kédougou ak fii mu nekk li gën a tax ñu gën ci kontaan mooy euh, ñun expertise locale maanaam ñi nga xam ne Sénégal la ñu dëkk. ministère de la santé à travers la direction des infrastructures des équipements de la maintenance nga xam ne Amath Diouf moo ko jiite ñoo saytu liggéey bi topp ko muy wane ni ñun amuñu dara lu ñuy jéggaane muy benn. ñaar hôpitaux yi ñuy tabax wax dëgg yàlla yi ma ñett yi ma cité yëpp mucc ayib la mais bu tubaab yi daf ci gën a euh, gën a daw ndax yee téeméeri lal ak juróom fukk bi ñetti téeméeri lal ñetti téeméeri lu tax moom ñu rafetlu ko ndax dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci mbirum paj xam nga booy tabax ay bërëbu fajukaay da ngay xool askan wa soxla ak dëkk ba dayuwaayam nu mu toll. so soo xaymaa fii région de Diourbel particulièrement Touba mooy ñaareelu ville Sénégal bu yéesee dakaar bu weesoo dakaar bu mm, ci koom-koom ci dayoo waay ci ay nit surtout ci surtout activités yi am régulièrement ay màggal ak ay yu noonu donc te lii suñu wareef ñun waa Kër Docteur fexe ba fu askan nekk ñu ñu baree lépp lu sox ci mbirum fajukaay mbirum ko dootuñu am ko la hôpital bi ñetti téeméeri lal la spécialité yi dafa dafa jéggi dayoo parce que ñi ngi su ko am fii Sénégal hôpital boo xam ne bii lépp loo xam ne am na Fann am na Dantec ak feneen ñu boole ko ci benn hôpital am na spécialité yoo xam ne dañ ko soxla lu baree bari mais am na yoo xam ni dafa gën a lu ñuy wax spécialité yu pointu euh, sama sama collaborateur wax na ko léegi am Diém centre des grands brûlés amul Sénégal ay atti yàlla ngir ñu di ko wër am na ay partenaires yi ñëwoon bëgg ñu fi jàppale mais amul centre des grands mooy xam foo xam ne fii ku lakk-lakk bu jéggi dayoo bu ñu yóbbul bu ñu bitim réew bu si yàlla àndee bu si yàlla ànd da nga ñàkk sa bakkan loolu fii lañ ko am te mu ne centre boo xam ne bi mucc ayib respecté norme yi lu am solo la fii bépp service bu ñu dafa respecté norme donc centre des grands brûlés boobu am fukki lal maanaam képp ku lakk ba nga xam ne lakk bi jégg na dayo ñu daan faj ci hôpitaux yi gën a makki sa Europe mën nañ la ko defaree fii te doo am dara loo ci ragal soo ñëwee ci urologie bi urologie presque mën naa ne moom rek moo fi am fii te urologie xam nga ni mu amee solo ci ci mag yi am na yoo xam ne boo koy def jaratul ngay ngay ubbi da ngay jaar ci bi endoscopie bi ngay jël boo demee aussi ci euh, ci cardiologie bi cardiologie interventionnelle maanaam ñi nga xam ne dana am arrêt cardiaque infarctus jaratul ngay dem Dakar fii mën nañ la fi traité ci am yu mu gën a baaxee ci ay mbir yu néew soo paree defal rééducation sa kër maanaam fexe ba sa kër mën a dellu dellusiwaat normal am na benn service bu ànd ak moom mu demee noonu mu am service de neurologie ak neurochirurgie neurochirurgie du hôpitaux yëpp ko am à part Fann yeneen ay services yu ndaw la woon mais fi am na neurochirurgie maanaam fu ñu mën a opérer bopp bi. su passé loolu am nañu wax naa ci cardiologie bi am na dermatologie gis nga maternité bi ak nombre de euh, euh, ñu koy wax te maanaam fi ñu téye xale yi xam ne dañoo judd mataguñu vraiment service yi bari na yoo xam ni am na Sédhiou am na Kédougou am na Kaffrine mi am na fii yeneen yoo xam ne daf ci yokk amul woon foofu ñu boole ko dayoo dayoo hôpital bi. soo gisee am na ñaar réanimation te loo xam ne su ngeen fàttali ko ci Covid moo ñu gën a sonal réanimation donc day euh, ñoom lalu réanimation dafa war a méngoog dayu dëkk bi moo tax am ñaar réanimation bu nekk suuf pour ñu opérer ak bu nekk ci kaw réanimation médicale bu mucc ayib. man dem naa fi euh, voyage ak euh, Amath ñu dem Las Palmas ñu gisoon réal li ñu gis fii foofu lañu ko gisoon boobu nag suñu suñu xol xawoon naxari toot xawoon naxari tuuti ñu ne ñii ëpp ñu xam-xam ëpp ñu yéene. mais doole lañu la ñu ëppoon te te doole ji indi na fi yàlla indi na ko fi Sénégal ñu ci rafetlu bu baax wax dëgg yàlla si gàttal euh, service yi ophtalmologie wax naa ko aussi waxuma ko woon ophtalmologie opération am na yoo xam ne échographie ophtalmo bi cetera lépp lu ñu war a sax ci spécialité lépp lu jumtuwaay kenn soxlaatul dem la damay ragal nag euh, waa Dakar waa Mauritanie waa Guinée Bissau ñoo di leen di leen di leen seet si moo tax docteur Soulay mi ngi doon naan dañu ci indi héliport parce que soo gisee nit da ngay bëgg sa dëkk am looy bëgg euh, nangu bañ te li borom dëkk bi def moom la moom la moom la fekk si liñ fi tax liñ fi defar rafet na mukk na ayib euh, te ki fi teg aussi muy docteur Sourang suñ xel rafet na set na lool ci lool parce xame nañ ko ndaamaatu ci hôpitaux yi ëpp solo ci hôpitaux yi Sénégal ci la bokk euh, yor bu rafet ci la bokk moo tax monsieur le président de la république yeesalaat kóoluteem ci moom indi ko ci hôpital bi moo tax suñu xel gën a dal man en tant que directeur bi jiit hôpitaux moo gën a dal sama xel moom mu ci gën a neex rafet naa njort ni li ñu ko jox dina ko yor yor bu rafet bu mucc ayib. sant sëñ Touba euh, sant sëñ Mountakha di ñu ko ñaanal mu yàgg fi te wér euh, di sant it nag kilifa yi nga xam ne euh, ñoo jël dogalu teg ma ci barab bi muy président de la république ak ministre la santé. ndaamaatu xëy na ba ma fay ñëw am na nu mu meloon boobu jamono jooju dëkk bi mel na ne xawoon na tumuranke lool ci am paj ndax yaakaar naa ne dañ fi fekkoon ci ay béréb bu fajukaay ci public euh, bu dee centre poste de santé yi euh, matul woon fukk ak euh, ndaamaatu googee ndaamaatu itam noon structure boo xam ne xaw a doy waar itam boo ko doon xool bu ma jëlee wàllu recette rek recette poste de santé sax da ko ëppoon waaye nag ci ndigalu sëñ saaliwu Euh, ñu ngi koy sant di ko gërëm lu ñu ko sant doyul lu ñu ko gërëm doyul euh, ndax lépp mooma euh, bi ma fi ne ñu teg ma fi ma ne fi jàppe ko it ndigal nekk ci ak suñu pas-pas ak suñu yéene waaye mu mel na nag ndimbalu suñu borom fekk nañu ci ñuy dox di dox di soppi di def ay pexe di yokk bërëbu fajukaay yi Euh, di wut ay spécialiste ndax booba euh, jàpp naa ne booba man rek maa nekkoon médecin ci biir centre de santé bi euh, man rek fa nekkoon médecin gannaaw gi laa recruter ay spécialiste ñii ma jëlee leen ci ay dëkk yoo xam ne dañu démissionné dañu dañu def dañu jël disponibilité sax ku mel ne urologue bi ñu koy wax njaay Diop ñu bari xam nañ ko fi dafa jëloon disponibilité ne ma dama lay fekk si foofu jàppale la ndax boobu gisoon naa ne lu amoon solo la booba jàpp naa ne région bi sax amagul woon urologue mu ñëw di ñu jàppale ñu wut gynécologue itam wut euh, échographe nekk ci ndànk-ndànk bloc ba defaroon nañ ko waaye mosuloon ubbi dama fekk ñu tëj lépp machine yi ñu def ko ci ay carton ñu wuti ñu ñu ko mën a jëfandikoo ñu ubbi ko commencé di opérer ci centre ba di dox ndànk-ndànk di dox ndànk-ndànk ba centre de santé de référence bi dem ba Euh, toll ci dayo boo xam ne dañ ne mënatul nekk centre de santé faaw dafay nekk hôpital ñu jël dogal bi euh, def ko établissement public de santé de niveau un euh, lu boobu it doonoon beneen challenge ndax bu ñu la fekkee ngay dox doxu centre de santé ñun la hôpital nga léegi dangay nuru nuru lu hôpital nag loolu ci wàllu tabax yi ci wàllu équipement yi mais ci wàllu itam xeetu nit ña fay ne ci ak seen xarala loolu itam ñu def ci ay jéego euh, def ci jéego yu am solo ba euh, yaakaar naa ne fi ñu toll nii nii nii euh, itte yi mooy def ko ëpp établissement public de niveau deux defe naa ne sax këyit yi mi ngi nekk ci yoon pour que ñu def ko établissement public de niveau deux parce que àgg na fa donc loolu lu ama am solo la loo xam ne yaakaar naa ne Euh, doxin bu bu bu bu doy waar la boo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax euh, wax dëgg yàlla euh, mbégte la ñu am boo xam ne am na fu muy tàmbalee waaye amul fenn fu muy yem ndax sunu mébét ci saasu ne moo doon ñi dëkk ci gox bi lu ñu ittewoo ci wàllum paj mën ko am fii ndax waxuma la déplacement bi sax ba dakaar jafe-jafe yi ci ne Euh, waaye euh, boo demee euh, léeg-léeg fooy dal sax dafay jafe loolu nag doonoon suñu itte ba fee ca ndaamaatu am na fa ay spécialistes yoo xam ne samedi ak rek lañ daan ñëw di def ay prestations pour jàppale askan wi am na ci yoo xam ne sa hôpital bi daawu ca am dara waaye lañ ci jublu woon mooy nit ñi bañ fiy génn di dem fenn loolu nag dafa mel na suñu boroom defal nañu ci ndimbal ndax fii kat ñoo ko gisandoo euh, barab bi taaru na yaatu na euh, boo xoolee fonctionnalité wu infrastructure bi lu lu doy waar la ni ñu ni mu bindoo euh, leneen li également mooy équipement bi nga xam ne hôpital dina ko soxla yëpp mi ngi ci biir mi ngi ci biir hôpital bi équipement yëpp benn rek laa ciy tudd muy radiothérapie radiothérapie bi Euh, ci service oncologie la nekk mooy ñi nga xam ne ñooy fat wàllu cancer nit ñi cancer day wéradi boo xam ne euh, yàlla ci yàlla musal jaam euh, dafa diis dafa diis ba noppi bare ay frais bare ay coono boo bëggee jóge fii nag boole sa wéradi ak di di déplacé wu à tout moment di dem di faju di ñëw dafay diis dafay metti lool ba nga xam ne tey loolu muy appareil boo xam ne ñaar la ci Sénégal euh, am nañ ko fii ci biir euh, Touba euh, bu ñu demee ba tàmbali yaakaar naa ne nit ñi dootuñu soxlaati dafa dem waaye yaakaar naa ne bu bu bu dëkk yi jege Dakar feesee yaakaar naa ne boo moytu dañuy fàq ñëw fii ngir sàkku si ko fi yeneen barab yi nga xam ne mooy barabu fajukaay yi muy lu mel na wàllu lakk Euh, am na xeetu lakk yoo xam ne ku mu dal te nga mën ko dañ ko daan yóbbu Europe pour ñu faj ko foofu euh, fii am na service des grands brûlés euh, yooyu mooy service yi nga xam ne boo koy xool service yu pointu la. service cardiologie cardiologie bi fi nekk aussi am na ay xarala yoo xam ne bare na lu ñu daan defi bitim réew sax léegi dinañ ko mën a def fii bu ñu amee boroom xam-xam yoo xam ne mate nañ ko. donc loolu wax dëgg yàlla euh, lu ama am solo la lu dalal xel la euh, li ñuy ñaan rek kay mooy euh, ñu tàmbali ko ci jàmm doxal ko ci jàmm te it waa dëkk bi jàppale ñu ci bu baax fexe ba li ñu fiy sàmmoonteel ñu ànd ko ñun sàmmal ñu ko ngir fii ba fukki at ku fi ñëw mu mel na démb la ñu tabax hôpital bi ci cet ci doxalin ci ay équipement yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, équipement yu am solo la te di fonctionner normalement nan nañu ko soxlaa woon jërëjëfati sëriñ Touba mbokk yi xam ngeen ne lii turandoo barabu fajukaay bi di Cheikh Ahmadul Khadim doon ñaan ci ngëneel lii bàyyee ko ci kaw ak ci suuf ci ndeyjoor ak ci càmmoñ te mu ñaanoon lépp sunu borom joyanti ko mu jëm ci dëkk bu sell bii di Touba mbokk yi xam ngeen ne lii de ci tabax yi sëriñ bi doon ñaan la kon gannaaw bu ñu santee sunu borom julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxtu wu nekk war na ñuy wax Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jëf waaye nag mbokk yi président de la république di Macky Sall ñëpp xam nañ ne lii moom yéene la ko defee ñëpp xam nañ it am na fu mu teg Serigne Touba waaye ñëpp xam nañ ne am na fu mu teg Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak defar na ci ñeent de. waaye ñeent yi fexe na ba nga xam ne bu Touba bi ute na ak yeneen yi ci des defar na ci ñeent de waaye defar na ko ci diir bu gàtt defar na ci ñeent de waaye fexe na ba mbooleem jumtukaay yi nga xam ne dañ koy soxla ci am paj président de la république taxaw na ba mu am ci barab bu sell bii kon monsieur le président de la république jërëjëfati waa Touba bég nañu de waaye biir nañu sëñ Mountakha bég na waaye bind nañu sëriñ Touba bég na kon mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon liggéey fii ndax fekk nañ fi nationalité yu bëri fekk nañ fi ay africains ay togolais ay béninois nga xam ne Serigne Touba c'est un homme universel tey daje na fi ay xeet yu bëri ñu dugal seen loxo ci liggéey bii nga xam ne wax naa ko ñu fiy liggéeyee lii de ku ci dugal sa loxo bokkul ak ku ci dugal sa loxo feneen lii de ku liggéey feneen bokkul ak liggéey fii li des nag mooy lii sunu yëfa mbokk yi nañu ko sàmm lii sunu yëfa nañu ko toppatoo lii sunu yëfa nañu ko aar sas nañ ñu président de la république sas nañu état du Sénégal sas nañu réewu Sénégal sas nañu biñ ñu indilee hôpital bi gën ci hôpital yi ñu tuddee ko euh, centre hospitalier Cheikh Ahmadoul Khadim kon nag war nañ koo jàpp war nañ koy saytu war nañ koo toppatoo te kenn waruñu cee juutu jërëjëfati Serigne Touba. لمنزل الدنا